jàngoroy Ebola ci njugub lay joge te du ko feebarloo njugub yi ñooy sànni jàngoroy Ebola yenn saay te loolu mën naa jàpp golo yi dàngin yi nit ñi ak yeneen mala looloo tax ñuy laaj ndax dëmm walla ndogal mbaa lu ni mel mën naa joxe Ebola déet jàppal ni jàngoro Ebola si njugub lay joge te jàppal ni suñu amee xibaar bu dëggu ànd ak suñu docteur yi dinañu mën aar suñu bopp ci Ebola